nee na mbokk ci wàllu yaay moom bu xasee nekk menn rek muy góor ak mu jigéen a ci yemoo ab juróom-benn lay am maanaam boo defee juróom-benn xaaj rek mu am ca benn su ëppee benn rek mat ñaar mbaa ñett ñoom mbokk ci wàllu yaay ñu leen di boole sulus sulus mooy ab ceer ko defee ñu bokk ko séddoo ko yemoo ci képp foofu na nga bañ cee juum da ngaa am yi noonu bu defee ay góor ak i jigéen te yemoo daraja góor ña ñaar ci la jigéen ña waaye jàppal ne fii mu mbokk ci wàllu yaay bu ñu def góor ñaar jigéen benn ñoom ñëpp ñoo ci yemoo ci sulus ba bu dee ñaar ak bu ko ëppee mel noonu daal ñoo ci yemoo képp maanaam mbokk ci wàllu yaay moom dañoo gaaw a daanu gannaaw boo tënkee ne bu fi bàyyi nekkee mbokk yëpp daanu bu fi doom ji góor nekkee mbokk yëpp daanu bu fi sët bu góor nekkee mbokk yëpp daanu da nga cay dolli ne bu doon ko seeyam doonte jigéen la dana daaneel mbokk ci wàllu yaay bu sët amee doonte jigéen la dana daaneel mbokk ci wàllu yaay su maam ji góor amee ba tey daaneel mbokk ci wàllu yaay nga xam ne kon am na ñett ñoo xam ne mën nañoo daaneel mbokk ci wàllu yaay te mën nañoo daaneel mbokk yi ci def ñett ñooyu nag mooy doom bu jigéen ak sët bu jigéen ak maam ji góor nee na mbokk mu góor moom ñi asabal la bokk amul benn cër boo koy waxal bu fi nekkee moom dong moo xam daa bokk réew bi ndey ak baay bu fa nekkul nag da bokk ak moom baay tey góor taxaw lu ci mën doon rek moom la fa nekk lépp moo koy moom ndegam nekku fa kenn ko war a doon ku may moom su fekkee mbokk mu góor ci wàllu ndey ak baay am na fa kon ku bokk ak moom baay kese daal nay daan ndax ku gën a jege bu mënee jeexal alal moom ku ko gën a suufee day daan kon nag mbokk mu góorum ndey ak baay bu fi amee rek ku bokk ak moom baay kese doonte day góor it du tee mu daan su fekkee mbokk ya fa nekk dañoo jaxal fa di góor ak jigéen waaye ñoom ñëpp ñoo yemoo dara ji ki faatu ni ki ñoom ñëpp ñu bokk ak moom ndey ak baay wala ñoom ñëpp ñu bokk ak moom baay kon dañuy séddoo góor ñaar jigéen benn nga xam ne góor ga mooy ñaar ci la jigéen ñaar bu fekkee mbokk mu góor ba fa nekk te bokk néew bi ndey ak baay mbaa baay dafay nekk borom cër dañuy bàyyi cër yi génn ba set la des na mu daal di koy moom waxan naa ko léegi waxan naa ko léegi maanaam mbokk yi bokk néew bi buñ jaxasoo di ay góor ak jigéen waaye ñoo yemoo daraja ci bokk ak moom ndey ak baay mbaa bokk ak moom benn baay kon bu fekkee ne borom bi cër am na fa ngay génn cër yi ba noppi la des nag ñoom ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn bu jeexee tàkk nag kon duñ am dara dara mel ne bu fekkoon ne ki faatu dafa bàyyi jëkkër ak mbokk mu jigéen mu bokkal ndey ak baay léegi nag mu des nag ay bokk yu bokk ak moom bàyyi dong tey góor ak jigéen xam nga ne kon su jëkkër jëlee genn wàll mbokkum jigéen rek bàyyi di mel jël genn wàll alal ji jeex tàkk kon ñu féete ci wàllu bàyyi jaxasoo di góor ak jigéen moo bu doon ay jigéen kese ak bu doon ay góor kese ñooy moo duñ am dara dara ndax ku xaar des moom bu desul rek nga ñàkk. ba léegi woon foofu masala moo xam ne siiw na ci téere miraas yi maanaam su fekkee bañ teggee téere ba mu jeex. dafa am ñu bokk moom ndey ak bàyyi doon xaaru des te desul dara waaye nag boo dee xool ña teggi cër yi ba mu jeex da ca am ñoo xam ne ndey dong lañ bokk ak kafaatu nga xam masala moomu daal lañ koy misaale masala moo xam ne ndey am na ca wala maamu jigéen jëkkër itam nekk fa mbokk ci wàllu yaay nekk fa te limu boo weesoo ñooñu nag nga teg ca ñu bokk moom ndey ak bàyyi te ay góor yi kese baa ñu jaxasoo di ay góor ak jigéen kon moomu masala juróom benni cir la war a doon ndax borom sudus bi nga xam ne moo ci am mooy benn muy yaay ji nga tudd wala maam mu jigéen ku mu ci mën doon ab sudus ab juróom benneel lay war a teggi te kon faaw nga def alal ji juróom benni xaaj su koo ko teggee benn muy sudus jëkkër war a am ñett muy genn wàll ndax doom amut sët amut kon ñeent dem na mu des ñaar nag mbokk yi ci wàllu yaay buñ xasee limu ëpp benn rek ab sulus ab ñetteel lañ war a jël te xam nga juróom benn ñaar moo di ab ñetteelam maanaam moo di ab sulusam kon juróom benn yëpp jeex na sàkk te am na ñoo xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay nga xam ne ñoom dañoo jaxasoo di ay góori ki jigéen mbaa bokk ñu di ay góori kese waaye daal boo leen seetee moom ñoo ñee bokk ak moom genn ndey ba jël ceeru alal ja muy ñaar ci juróom benn ya ñoom ñoo ñee ak ñoom ñii doon xaaru des ñoo yemoo képp ñoo yemoo képp ci bokk ki faatu genn ndey waaye ñoom ñi ñoom dañ cee boole bokk ki faatu bàyyi boole ca loolu nag moo leen moo leen doon tax a xaaru des te desul dara lii ba mu njëkkee xew ci jamono yi Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu nii rek la defan daa daal di bàyyi jëkkër teggi ñett ndey ma fa nekk mbaa maamu jigéen ma fa nekk teggi benn muy sudus ña bokk moom jenn ndey te war a am ab ceer dal teggi ñaar muy ab ceer mu daal di bàyyi ña bokk ak moom ndey ak bàyyi ñu ñàkk mu ne leen yéen da ngeen doon xaaru des te desul dara ba mu delloo xewaat nag ba tey ci jamonoy Omar ñoom ñoo ñee nga xam ne ñoo bokk ak moom ndey ak bàyyi ñoo wax Omar ne ko waaw nun dey ñee nga xam ne ñoo doon ceeru alal ji ak nun ñi ak ki faatu jenn jenn ndey ñu noo ko bokk nga xam ne suñu bàyyi bee rek nu bokk ak ki faatu moonu xañ moonu tee am waaw tee noo sànni suñu bàyyi fële bañ koo limaale mel ne aw doj woo sànni jigéen ji rek wala bokk muy mbaam rek nga xam ne daal ñun ñëpp noo bokk bokk jenn ndey nu bañ a limaale suñu bàyyi bee tan bokk ñoom seen sulus bee muy ceer bee rek ndax ndey ji moom jenn jee bàyyi bi rek moom na xañ naka ñu wax loola nag Omar seetluwaat ko daal di rafetlu loola wéyal ko ca la ñu doxee nag di àttee ba salami noonu saa yoo xam ne am nañu bokk ka faatu ndey ak baay doon xaaru des te desut te am ca ña teggi saam ya ñoo xam ne ndey doonga lañ bokk ka faatu teggi ceer ba ñu daal di far boole ñu doon xaaru des bokk moom ndey ak baay ak ñooñee teggi woon ceer ba ñu far yemoo rek bokk ceer ba séddoo ko yem ba ca képp nag duñ ko def góor ñaar jigéen benn déedéet dañuy mel ne ñoom ñëpp ndey rek lañ bokk ak kafaatu daal di séddoo ceer boobee yemoo ca képp képp góor du ëppale jigéen. nee na nga seetlu ne bu fekkoon ñoom xaaru des bàyyi képp lañ bokk ak néew bi kon dañuy ñàkk ndax ñu la leen tax a doon mooy ndey bi ñu bokk ak ñu jël sulus bi rek ndey bi ñu bokk bokk yi ci wàllu ndey dong moo tax ñu ñu boole na ñoom ñu bokk sulus ba waaye bu fekkoon ne. ñoom xaaru des dañoo doon ay bokk ci wàllu baay su boobaa dañuy ñàkk ndax ndey ci tax ñu doon ndey ci tax ñu féet ci wàllu ay di doon bokkuñu ko bu fekkoon ne nag ñoom xaaru des te bokk néew bi ndey ak baay dañuy exiger ni kese góor raxu ca su boobaa kon du nekkati masala mustarika ndax kon dañoo tegg saam yi rek saam yi nar a manqué waaye xam nga ne bu dee menn mu ji bu dee menn bokk mu jigéen ci wàllu ndey ak baay war naa am genn wàll bu dee lu ko ëpp war naa am war nañoo am sulusaani te xam nga ne bu fekkee du ndey bàyyi itam ñëfeeti ci wàllu bàyyi bi ngay jigéen kese ba tey kenn ka loolu lay def jël genn wàll tóob kenn ka itam jël sulusaan yi kon ñi mu la wax ñi juróom benn yi nga defoon mu jeex tàkk bu fekkoon ne ka fa desoon day menn bokk mu jigéen bokk ne bi ndey bàyyi da ngay tasaa mi def ko juróom-ñeent ñett ya nga ci dolli ci juróom benn ya nga jox ko jigéen ji bokkagul ndey bàyyi sompo ngee ko waral suñu ëppoon kenn doon ñaar nga somp ñeent dolli ca mu ànd juróom benn muy fukk maanaam kon la nga defoon juróom benn saam da nga koy soppi muy fukki saam bu ko defee fukki saam nag léegi ñeent yi nga ci yokk ci ay saam ña bokk moom ndey ak bàyyi tey jigéen ñoo ko moom loolu nag jàppal ne bu fekkoon ne ka des dafa bokk nag moom bàyyi tey jigéen itam mbaa moom kenn tey jigéen itam atte noonu lay mel nee na bu fekkoon ne ci wàllu yaay limuñu woon nga xam ne bokk ci wàllu yaay kenn képp la muy góor mi jigéen a ci yam xam nga ne kon ab sudus lay jël mooy benn lay teggi te bu teggee benn faaw mu des benn at bu desaatee benn nag ko ñaru xaaru des jël ko du nekkati masala mustarika seetlu ko bi nga ko defee juróom benn bu fekkoon ne ba jëkkër teggee ñett yaay ci misaal teggi benn mbokk ci wàllu yaay kenn képp la bi góor muy jigéen moo xam nga benn lay teg kon muy sudus kon dana des benn ndax juróom rek moo dem des na benn su boobaa kon ña bokk moom ndey ak bàyyi tam xaaru des kon des na benn benn ba la ñuy jël rek séddoo ko ak bàmb gu leer naññ na ñu nekk fekkoon ne bi nga joxe juróom juróom benn yi ba mu jeex ka amut day jigéen ji bokk ak moom ndey ak bàyyi mbaa mu ëpp kenn xam ne kon bu dee kenn ki di la bu dee lootu kenn ki sulusaani la su boobaa ngay somp ni ma waxoon léegi bu dee kenn dong nga somp ñett saam yi soppi ko juróom-ñeent bu dee ñaar mbaalu góob nga somp ñeent muy sulusaani la nekk juróom-benn soppi ko fukk mbokk mu góor mu bokk ak ki faatu bàyyi dong day wecci nga bokk ak moom ndey ak bàyyi tey góor lu may nag ci masala mustalika mi nga weesu masala mustalika mi nga weesu karam xaaru des bu dee góor gu bokk ak léegi ndey ak bàyyi te gis nga ne jeexoon na dañ koo jël boole kook mbokk yi ci wàllu yaay ñu bokk sulus ba seddoo ko yemal ca képp te nag bu fekkoon ne ka desoon di xaaru des wàllu baay dong la kon xam nga la tax ñu doon muy ndey bokkoo ñoom su boobaa kenn du ko boole seen ñoom moo tax mu ne la mbokk mu góor ci wàllu baay mën naa wecci mbokk mu góor ci wàllu ndey ak baay ba mu des ci masalam mustariqa moom mënu ko caa wecci mu faa taxaw taxawaayam daa wax ne dooy mbokk day taxaw taxawaayu mbokk koo xam ne amul mbokk rek dooy mbokk mooy wecci mbokk dëgg-dëgg mel ne koo xam ne amul mbokk waaye am na dooy mbokk moo xam ne moo baayam ñoo bokk ndey ak baay kon kii mooy wecci baayam boobu fi nekkut nga xam ne kon niñ koy tegalee mooy mbokkum góorum ndey ak baay mooy jiitu bu fa nekkul mbokkum góor kese tege ci wàllu baay bu jàllee nga teg ci seen doom te njëkkee ki nga xam ne seen ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay nga njëkkee doom doo caa teg ki nga xam ne seen ñaari baay baay lañ bokk kooku doom mooy mujj maanaam koo xam ne yaay doom ngeen bokk moom ci bopp dana doon wax na la sax ci ab cëram waaye doom nag moom du doon ñaari mbokk ci des mooy nga bokkal ndey ak baay tamuy góor mbaa ki nga bokkal baay tamuy góor waaw kay koo xam doom di doon waaye ki nga bokkal ndey kese moom doom du doon